Cheikh Maodo Moussa Falilou la fay defee màggal gi ñun nag gisuñu ci suñu bopp wax dëgg yàlla bëri na lu fa manqué ndax bokk na ci quartier yi gën a lëndëm bokk na it ci quartier yi nga xamante ne bii moo gën a ñàkk sécurité loolu moom ñëpp xam nañ ko bokk na it ci quartier yi gën a ñàkkum ndox loolu lépp nag ko wax nañ leen léegi nag jël nañ ci engagement ñu ngi toog di leen xaar ba xam dinañ ko def wala du ko def mooy tawub Cheikh Mouhamadul Fadal moo wuutu woon Serigne Fallou 1968 bi fi Serigne Fallou jógee moo ko wuut doon ab xalifaam nekk fi ba 2000 la fi jóge doonoon koo xamante ne bi yaakaar naa ne doonatul ku ñuy présenté ci réew mi ak ci bitim réew ñëpp ko xam bis bi ñu koy wooteel nag bis la boo xam ne bisub ngërëm la ngërëm lu mu amoon ci Serigne Touba ndax bis bi boo koy jàngat day tollook bis bi juute ubbi woon jumaay Touba ci la Serigne Fallou woowoon Serigne Modou ne ko kat am na am nga ngërëm loo xam ne tey ci man ndax jumaa ji bañ ko euh, wootee Serigne Fallou da ko woo daal di ko ci def jëwrin mu sañc ay dëkk yoo xamante ne bii da daan def lu mu fa bay bu mbay ma ñoree mu jël mbay ma ak dugub ja ak fas ya ak ña ko bayoon jëbbal Serigne Fallou wutiwaat yeneen bi jumaa ji àggee nag Serigne Fallou ne ko jox nga ma ci jumaa ji lu toll ni ab sooroor ma fi jox bu ma ko doon nattale toll ni na ab sooroor ma bëggoon nag nga xool sooraal yi bu la ci neex nga féetewoo ko ba nga xam ne saa yoo ko rombee nga xam ne lii sa jëfa sëñ Modou ne ko tànn naa sooral bi féete yow mu daal di ko xanaa rafetaay bi ci nekk tax mu ne ko déedéet lu féete yow ma gënal lu féete wut ak yow bis boobu nag sëñ bi ne am na ci mbégte moo xamante ne bi yàlla rek la koy seedeel rëy ci njaboot gi moo tax ñu fi dajee di ko fàttaliku at mu jot at bi mi ngi doon euh, mu ngi doon le 24 septembre incha allah waaye lu ko jiitu tam dafa am date dafa am ay petit fils mooy sëti sëriñ Modou conférence bi ñuy def chaque année boobu moom mu ngi koy def le 23 dimanche lay dajal incha allah màggal gi ñu ngi ko tàmbali 2004 ko